ñew fi 6 ans ni la mo la gëna ñëmé lu metti lolu yanul mana Idrissa Seck est ce qu'il est constant mais mature amna fo xamanteni des gestes d'immaturité buñ ci xaar idriss Seck duñ ko fa gis gis nga ma xamal la sadibu ñun waruñu cultiver même la haine sur nos jeunes frères gis nga ce que je vois dans les ci réseaux sociaux yi ak yoyut lolu du suñu rôle ñun parce que gis nga am a fu ñuy yóbbu booy nous ñu nekk foofu ci insulte bi saga, saga, bi affaire Nous, ñun hériter hérité de cela grand naturellement à qui nous donnerons longue vie nous ferons baisser sa forme grand naturellement dem la transmission se fera c'est nous notre génération qui allons hériter de cela nous ñun nous dire suñu comment être négatif comment être haineux non nous nous sommes le Sénégal le Sénégal, le Serer aime le Wolof. Le Wolof aime le Toucouleur. Le Toucouleur aime le Diola. Le Diola aime le Halpolar. Non, nous le nous dundé. nous indi une haine entre les Sénégalais. Faisons la politique avec élégance et maturité. Dama bëgg ñu xam dal la sérénité dal ñu jànge ko ci suñu nos grands frères parce que force est de reconnaître par exemple ku mel leader nga xam ni 2004. En 2020, soit 16 ans, je suis dans l'opposition. 16 ans, je suis dans l'opposition. Avant ça, 85, 2000, je suis dans l'opposition. dans l'opposition. dit 15 ans. 15 plus 16, ça fait 31 ans. 31 ans, je suis dans l'opposition. Je fait 6 ans ni ko yaa ko a lu metti wala yow yaay opposition radicale man du comprendre lan mooy radical bu fekkee ci biir 31 ans En 2004 avez eu le pouvoir ba 2020 mu nekk le seul ki nga xamante ni opposant a gardé sa base dans l'histoire politique du Sénégal pendant 16 ans 2007 ñu gagné Thiès 2009 ñu gagné Thiès 2014 ñu gagné Thiès 2019 ñu gagné cees ci biir loolu 2012 ñu jàppale le président Macky Sall au deuxième tour il vient dire au président Idrissa sec lu dul sama chaise man bi ma toog leneen loo soxla ma jox la ko pour ñu ànd liggéey mu ni ko ci politique lépp lu décret di maye man maa ko suur boobu ak léegi sept mois lañ def ci gouvernement bi génn ndi fi Macky Sall jëm baaxul lan mooy radical ak lan mooy complaisant dafa am lu ma la limal parcours de 31 ans d'opposition boo xamante tu restes et tu demeures l'un des plus grands opposants du Sénégal nga nekk ci naaj wi nit fekk la fa 6 ans laa wax ni moom moo la gën a radical man du ma comprendre ci diggante boobu kooku def ñetti trois fois nga def ko kaso pour ton engagement pour le Sénégal 88 2004 2005 le parrainage de Dembo Ndiaye bi ñu le président de que je veux dire li ma la génération B. nous avons une sérénité Nous avons une opposition radicale le président Khalifa Abba Sal, ce n'est pas mon leader mais c'est quelqu'un que j'estime beaucoup Khalifa a gagné Dakar 2009 gagné Dakar 2014 mais Khalifa après ces deux victoires là le pouvoir a tout fait pour que Khalifa ne ak Mo mu bañ valoir ko mu kan radical pourtant ne ko mais est-ce que vous le président Idriss man sama quelques années ci Pikine xam ville dem vérifier cinquante moto pompe la maye trente yi ñu yóbbu ko ville de Pikine trente yi ñu jox ko ville de Guédiawaye bu dul woon li sama papa nekkoon charge sociale am doon ko yóbbu mën naa même man kon duma ko woon yëg yow mii leer na mu ni yëgoo ko ak ñeneen mais bu dee radicalisme mooy dem fi mbënd mi am nga tam nit ñi dëmm nga ni dëmm nii wala nooxóor nii bu dee foofu mooy radicalisme fa la ñuy xaar le président Idriss Seck duñ ko fa gis Si dee foofu mooy radicalisme fa que xaar le président Khalifa Ababakar Sall duñ leen fa gis parce que nous dañu am liñ nane sérénité ils sont fermes dans leur position mais ils sont élégants dama bëgg ñu xam ben affaire opposition ak adversité ak haine du ben. nit mën na nek sa adversaire mais de là à ce que ngeen nek ay ennemis du ben. nous avons une proposition pour le Sénégal

mun Muntaxa Mbàkke Basiiru mi nga xam ne mooy xalif général des Mourides moo wax loolu ma fekke ñu dem Sëriñ Babacar Sy Mansour réitéré ni ko Idrissa mbaa xam nga ni jàmm Sénégal lu ci bari dafa nekk ci say loxo mu ni ko sa champ d'action yow Idrissa champ d'action yàlla la kon xamal ni jàmm réew mi dafa am lu ci nekk sa loxo bu fekkee nag dem Casamance ni Casaase yi Macky Sall leen ak ni ni ñu xamee Casamance bu fait dem ci mbënd mi tam nit ñi dëmm loolu radicalisme non le réew n'est pas dans ça nous nous sommes fermes non dama ni ñun nous sommes fermes nous sommes constants dans notre position Je suis la léegi ay gestes yu président Idriss Seck def yoo xamante yow mi nekk journaliste mal au ko l'homme est comme ça c'est l'efficacité et la discrétion il n'est pas dans le populisme c'est un acteur politique boo xamante Sénégal ak Afrique ak àdduna dafa am cër buñ ko jox ñuy def politique avec fermeté mais avec élégance et avec responsabilité Idrissa que tout ce qu'il fait c'est mesurer ci intérêt supérieur de la nation rek lay dox ñun suñu parcours parcours leader bi ak parcours réew mi ku ko xool rek da ngay xool ndax ñii ay nit yu jël position lañ taxaw dans l'opposition wala ay nit yu négocier lañ nee la képp ku nekk dans l'opposition fiñ toll am ñi nga xamni génn 2012 7 mois naan Macky Sall fi nga jëm baaxul politique guñu woon ñenn ñi politique guñu woon woon engagement pour seen dëkk boobu ñun ñi ngi am engagement pour suñu réew ak ñeneen ñi nga xamante bu que dem mas ni leen Macky de daf leen Vous bu que dem ci mbënd bi ni dem noo Madame leader un leader c'est d'abord qui mën a un leader c'est un homme serein la sérénité am self control c'est lañu wara jangal même suñuy ndaw bu wesso même ay ay opposition radicale Idrissa ëpp nako do ko ci gis Khalifa Sall parce que nous, dañu mature. pour man ériger Kermassar en département ak régler le problème des inondations bir Kermassar, Massar ak banlieue bi ak Sénégal c'est deux choses distinctes sama déjà dafa am lo xam dama koy ñaan man le président Macky Sall luma ñaan la buma am man en tant que sénégalais moy man fi mako don xaar moy bi président Macky Sall eggee la première chose à faire moy bi mu gisee ay famille yo xamné ñi ngi dëkk ci ndox mi bi mu ay famille yo xamné ils dorment à la belle étoile bi mu gisee ni amna famille yo xam la dignité même de l'être humain mo, mo, mo, menacé wu fof manam apprendre à vivre avec le virus moom gis nañ mais apprendre à vivre avec ces eaux là eaux pluviales eaux usées ak nappe phréatique buy jóg lolou kenn mënul dund ak mom donc lima don xaar le président Macky Sall la première chose mu fexé reloger ñi nekk ci ndox mi ñu nekk ci ndox yi seen kër mettre quoi à sec dans leen de l'eau parce que comme ni ma la wax il y va de la dignité humaine da ngay gis père de famille njaboot yoo xam ni Sadibou da ngay am da ngay am da ngay am lu la metti parce que il dorme à la belle étoile même seen toilette kër sax mënatuñ ci am accès ñooñu état daf leen amel jël leen fi ñu nekk ci coono boobu dugal leen fenn muy camp muy hôtel muy fu mu mënti doon ba ngacc li nekk seen kër yi ba pare delloo leen seen kër parce qu'il y va de la dignité humaine dama jàpp ni loolu mooy li waroon njëkk a am la deuxième chose mooy le plan décennal mais ça à dire bu force est de reconnaître que li ñu gis ci plan d'urgence bi ñu defoon ko Philippe Maguelen Senghor Ouest Foire Foire euh, exutoire bi nek fi ci VDN bi mais amul problème parce qu'ils ont exécuté ligne ñu def problème bi c'est de continuer le plan décennal bi nga xamanteni mais ay techniciens ñoo ko xalaat muy lu bax force est de reconnaître que plan bi ben instant dañu nekkoon ci yeneeni priorité gis nga nak priorité mënul weesu nit ñi dëkk ci ndox mi paludisme bi di ñëw choléra mën a am mais problème mu peau Sénégal ñaari ñaata dermatologue lañ am wul nga dëkk noonu ci ndox mi mu jur ay problème peau mën a topp ay nit wala ay génération moi je je je je je dis au président Macky Sall foofu na dawal yërmande na sortir ces familles là de fi ñu nekk mu mu rendre sec foofu mu delloo leen te ñu continuer le plan décennal là pour vraiment le bien-être des Sénégalais waaw naturellement Grand Dakar yàlla dafa dogal à 31 ans ma ñëw deuxième aux élections nekk le plus jeune conseiller de la ville de Dakar tey bu ma koy wutiwaat dafa am ci trois phases yu ñu nekk bi jiitu ci lañ nekk nii mooy mettre en place benn comité scientifique boo xam ni ay doomu Grand Dakar boroomi xam-xam yu bari suñu ay mag suñuy aînés ñoo xam ni sama génération vraiment des de grands cadres de Grand Dakar pour faire l'évaluation de la commune depuis 1996. Maintenant, il y les trois phases, acte 1, acte 2 et acte 3. De, nous regardons l'an le jour, le bar, l'an un manquement. Deuxième phase consiste à écouter les grands Dakarois, moi mooy mooy mooy vraiment les chefs de quartier moi les bàjjanu gox les ASC moi couche yépp ci Grand Dakar imam yek yoyu ñu déglu leen waxtaan ak ñom pour que nak ñu mën leen proposer un plan quinquennal ou même décennal bo xamné même ñun buñ joggé ci maire bi da na ko doxal ñu am luñu ñu ni Grand Dakar fi lañ koy jaarale pour développer parce que dañ ni centre de santé bi problème bi muy am ñun sur le plan vraiment des écoles compétences décentralisées école euh, primaire surtout boy xol namu ñun la sur le plan aspects yu muy euh, le goût du changement par exemple sur le plan culturel quand Grand Dakar nga xamni richesse culturelle ñun ku mel ni Doudou Rose Grand Dakar le Judo, fa la màggee Rose di doomu Grand Dakar la Doudou Rose ils nous représenté au plan culturel au plan mondial tay ku mel ne Pape le leader de la génération consciente Grand Dakar le Judo. tay on a des jeunes frères les Tarba Mbaye suñu rakk yi nga xamni sur le plan culturel ils sont excellents sur le plan du cinéma ay Abou Camara yi ñu dégg ci festival yu mag yi mu am lu mu représenté ci Sénégal tey jii tey jii sama ay rak mu ñoom Cheikh Gadiaga Fred yi ngay gis maanaam Grand Dakar moo am benn grenier culturel boo xam ne yooyu yëpp dañ koy boole ci plan bi et sur le plan sportif aussi mu doon yoo xamante ni buñ ko boolee euh, vraiment jàppale leen taxawu leen je pense que Grand Dakar nit ñi dinañ ko dégg fu nekk. donc dama gëm ni. Euh, du man kese sama génération dafa am Karl Marx da doon wax prolétaire de tous les pays unissez-vous Yakarna les murit et les tijan ont montré que li yalla ni a jamaatu rahma moy li am Grand Dakar ken du ñew défaral ñuko ñun wa Grand Dakar suñu la fédération de nos forces def jamaatu rahma bi yalla wax suñu ay force xamni kuy jënd ben ci boutique 150 si 100 personnes dajalo diko le cahier chute à 125 à 100 francs donc la fédération de nos forces nous ñuy pour nous développer grand regard